Dakar euh, aujourd'hui euh, quand on crée un parti politique jóge ci mouvement citoyen tous les acquis nag sont remis sur la table mm-hmm. ñi nga doon àndal ci mouvement citoyen euh, am na yeneen ambition yu bees am na beneen vision bu bees am na mm-hmm. beneen doxalin bu bees mm-hmm. donc il faut nga ñëw nag tegaat les choses sur la table élargir les discussions waxtaan ak nit ñi wax naa sànq ne que on est un parti de gauche donc forcément on aura une sensibilité particulière pour les partis de gauche. Mm. Et aujourd'hui, je pense que c'est important pour que ñu bañ a nekk dans un écosystème radioactif. Mm-hmm. parce que man dama jàpp ne que politique u Sénégal dañu nekk ci benn écosystème radioactif maanaam euh, instable. Mm-hmm. aujourd'hui il faut qu'on retourne dans des fondamentaux il faut qu'il y ait un fil directeur doctrinaire maanaam idéologie. Mm-hmm. tey parti bu jóg. mais parti politique la mais xamuñu yow lan mooy sa vision ci politique xamuñu lan mooy sa gëm-gëm ci politique beneen bi mooy la rationalisation des partis il faut que ñu rationaliser parti yi 350 partis pour un pays de 18 millions d'habitants c'est une aberration mais bu ñëpp parce que tamit ko gaaw rationaliser <laughs> waaw xaaral ma ñëw rek c'est-à-dire que rationalisation ne veut pas dire ne pas se constituer en parti su ma nee rationalisation je parle des lois et règlements en vigueur dans le pays mm. loolu moo la may nga mën a constituer en parti politique donc tant que la loi est là et qu'elle existe comme est et que les Sénégalais dans leur entendement euh, fonctionnent comme ils fonctionnent Sénégal dina mës a am ba mille partis euh, li tax ma wax rationalisation mooy dans un pays de 18 millions d'habitants tu ne peux pas avoir 350 visions ce n'est pas possible <laughs> et un parti politique c'est une vision du dëgg troisième point fondamental bi nga xamante ne jàpp naa ne politique Sénégal ci la war di sukkandiku nag pour l'avenir à partir de 2024 ak ci loo xamante ne ci lañu ñu jëm mooy il faut que les gens euh, euh, évoluent que les gens travaillent autour d'un idéal et pas autour d'une personne Lorsqu'il s'agit